tey dañ fee daje woon muy sunu première ndaje depuis euh, bon créer société bi ba léegi ñi créer commission bi ñuy wax conseil de surveillance tey mooy sunu première ndaje pour ñu jéem a waxtaan ci li jëm ci société bi waroon nañ ko def bu yàgg waaye yàlla def na euh, waaw yàlla def na Covid 19 bi taxoon ba. Euh, ndaje mi mënatoo a am daan nan waxtaan ci téléphone daan nan waxtaan ci whatsapp waaye comme léegi allégé nan un mbir yi moo tax ñi profité ci occasion bi euh, jéem a def sunu ndaje bu douze personnes euh, jéem a waxtaan ci li jëm ci société bi tout d'abord société bi société bu internationale la bu yëngatu ci mbiru càmm du yëngatu ci mbiru mbéy du yëngatu ci mbiru artizana du yëngutu ci domaine yu bëri euh, lu jëm ci napp waaye li am solo tey moo di ne euh, Abdourahmane Ka nee na dana jël alalam def ci waaye aussi dana jël alalu partenaire yi nga xam ne ñu ngi jógee bitim réew ba ci réew mi dana fexe ba ñoom ñëpp képp koo xam ne napp ñor na la càmm ñor na la mbéy ñor na la Euh, artisanat ñor na la dana fexe ba nga dugal ci sa euh, koppar loolu nag pour développer Sénégal la waaye pour dimbalee gouvernement bu Sénégal la ndax xam ngeen ni guddeeg bëccëg gouvernement bu Sénégal ci loolu la nekk waaye jël dajul fépp il faut que bu gouvernement bi defee lii ba pare am yeneen bonne volonté yoo xam ne aussi dañuy mën a def leneen luy xaw a mottali li gouvernement bi di def loolu moo waral président am initiative bi ne loolu da koy def def ko ci àddina bépp def ko ci Sénégal bépp Mauritanie ci la Mali ci la Sénégal ci la Gambie ci la yeneen pays su de la sous-région ñoom ñëpp ci la même diaspora bi sax ci la loolu nag bu mu amee ba ñu créé ni ñun ñu nekk conseil de surveillance dañ ne ñun nan waxtaan fii waxtaan boo xam ne dafay am solo waxtaan bi li ko gënoon sumb tey moo di ne président def ñoo envoyé fii ay document yu nga xam ne gën nañoo wan ni transparence moom ci la nekk mooy lan nit ñi doon jënd ay action di ko jënd ci Sénégal gi ak fu lépp def na relevé bancaire yi tey yónnee nañu ko janvier deux mille vingt ba fii ñi toll tey muy juin deux mille vingt xam na ñaata actionnaire ñoo soumissionné wala ñoo adhéré ci société bi xam nañ aussi ñaata million wala milliard ñoo dugg duggagum ci société bi te boobaak léegi xaalis buy dugg rek moo am benn dërëm bu gën a tuuti génnegul ci banque yi jëm feneen donc li doon dugg rek moo fi nekk li am solo nag léegi tey ñun def nañ li ñuy wax une évaluation à mi-parcours tey xam nañ ne société bi am na lii ci alal comme am na lii ci alal danañ peese alal jooja lan la mën a def bu ko defee ñu àggale ko suñu président national directeur général ñu ne kon ko comme am nañ lii nañ ci jéem a def lii ak lii ak lii ak lii ci càmm gi ak ci mbéy mi ak ci napp gi ak ci yeneen ak yeneen loolu nag travail la boo xam ne bu sérieux ay cadre ñoo koy def ay intellectuel ñoo koy def ay expérimenté ñoo koy def loolu moo waral conseil de surveillance bi nga xam ne douze personnes la nga xam ne am na ay maire am na ay haut conseil am na ay conseil économique social et environnemental am na de bonne volonté am na ay marabout am na ay borom xam-xam am na ay agent de développement am na ay honorable député bépp nit koo xam ne yaakaar nga ne yow am nga njëriñ ci société daanaka gis couche boobu gis na la ci suñ biir conseil de surveillance loolu daal ci tënk moo waraloon suñu ndaje fii tey léegi nag liñ ci constaté moo di ne nit ñi euh, la adhéré na waaye dañoo bëgg ñu gën a yokk adhésion bi ndax président Ngagne li mu wax moo di ne bu sañoon bépp village bu nekk ci Sénégal membre société Sud-Domaine dafay nekk bépp kër bu nekk ci Sénégal membre société Sud-Domaine dafay dal di nekk foofu waaye bon defee tey suñu constat xam na ne loola àggagun fa des na ay jéego yu bëree bëree bëree bëri donc ñu ngi ñaan béykat yi sàmmkat yi nappkat yi ak fun mën a nekk ci Sénégal kenn ku ne xam ne am na société bu bees bu ñëw di xeex ndool di jàppale béykat di jàppale sàmmkat te Abdourahmane Ka jiite ko ñëw na donc kenn ku ne na ci def loxoom bu ko defee ñu jéem a développé Sénégal ba Sénégal daj jéem a dajeel développé Mauritanie jéem a développé Mali jéem a développé Afrique de manière générale wasalaamaaleykum wa rahmatullah. montant bi duggagum quoi. waaw euh, euh, secret la. mais wax naa lañ ko nee naa actuellement amagum nan ay milliards yu tegal. waaye loolu top secret la parce que société àggagul foo xam ne dañ koy mën a arrêté capital bi bis buñ arrêté capital bi nag net bu boobaa da ngeen ko mën a xam bu soobee yàlla